waxtaane lu am solo war ñuy bàyyi xel lu am solo ak Sénégal yépp ci jëm ji nga xam mom lañ la wax pap Alé ma ngi wax interpeller président de la république ak gouvernement bi ak kilifa diini yépp dama bokk ci ñooñu nañu sét yalla ci li def pap mi jiwul république bi wala jiwul Sénégal lii ñu ko tek nit def na la ko gën a doon musiba junni yoon ñoom mi ak toj-toj ak musiba yi ngi def ci rap lii rapport Cour de comptes wax ci affaire Covid 19 bii weesu au lieu que ñu jël lépp teg ko ci loxo yoon yoon saytu ko ñoom ñu jël ko teg ko ci palaatu télévision yi yaakaar na foofu lañ koy foofu lañ ko war a plaider te loolu moo gën a garaaw téeméeri junni yoon ak yeneen yu ñëpp mën a ñëpp teg bët teg ci loxo. yoon waroon ko topp tama bokk ci ñoom ñëpp ñi ngi taxawal di daagu yoo xam ne sax yu yu yu doy waar ab journaliste boo xam ne lam doon wax dém moom la kon di ko wax tey jël senegal teg ci kanamam ak dëgg ak full ak fayda lépp ñu teg ci démocratie mu teg ko ci yoon ak loo xam ne liggéeyam en tant que journaliste d'investigation Macky Sall mi jiite réew mi bi jamono yi nga xam ne dañu jëbëre yaakaar dafa àndoon ak moom boobu day moo ne lam doon def lam doon wax mën naam neexutoon ablaye wadd waaye grandeur ak responsabilité ak sagesse xëy na moo taxoon ablaye wadd amoon tolérance te kilifa dëgg nga noonu mais pourtant Macky Sall mii tey même taxawaay bu mel noonu la Pape Alé am moom war na am grandeur ak responsabilité ak sagesse mu comprendre au contraire dana mën a dimbali koo sax ci li muy wax ci li mu koy wax man di jubbanti ko waat mais li may wax arrangé wu ma rek danaa la sànq faaw nga bàyyi li ngay wax faaw nga bàyyi wax ji man noonu laa ko jaa laa ko dégg faaw mu faaw nga noppi bàyyi li nga parce que arrangé ma léegi mu dem ba toll ci état bii ñuy wax ni fi la toll Pape Alé Niang mérité loolu loolu amoon lu gënoon yomb ci moom ay moroom di ko def mais di di di def ay dëbbal dëbbal di complot di wër di wër wërloog Sénégal yi di lekk nekk ci nguur gi di def yu kenn xamul loolu ay morom journal ay moromam ñi ngi koy def pourtant bu ko neexoon mën na ko def ay mor mën naa mën na ay morom ay morom sénégalais ñi ngay def lu mel noonu fa xool fa gën a nooy gën a yomb ñu féete woo def di di bind yu kenn xamul di jaay seen i papier ak loolu ñu di ko def nekk ci télévision yi def ay jabolisation di yàqu der opposition beeg loolu mu def di nekk ci ay complot yu kenn xamul mais bu ko neexoon mën na ko def def ko te loolu gën a yomb te moo ëpp ay moyens def ko waaye dafa féete ak dëgg féete ak yàlla kon ku mel noonu li mu servir réewam ci wàllu lim lim lim doon mooy métium journalisme référence la ci Pape Alé Niang Pape Alé référence la ci référence la ci yàlla xam na ko waay waay Macky Sall président de la république seetal yàlla gëmal yàlla amul lu dul jeex ci àddina lu dul jeex ci àddina amul man di jox Macky Sall sax di ko wax ay yooyu sax man dama ko tàyyi ndax man wax naa ba tàyyi ne euh, dëgg dëgg daal yàlla nu yàlla yàlla nu yàlla musal euh, rek te te te jéggal ñu te te te te waaye doy na waar doy na waar doy na waar wax doy na waar Pape Alé nañ Pape Alé Niang nañ ko bàyyi mu ñibbi balaa balaa musiba di di xew ci ay di di xew man sax jàpp naa ne ñii moom nii ma leen gisee nii nii nii nii nii nii maanaam amutuñu amutuñu dara lu ñu rus ci àddina moom amatuñu dara lu ñu jommale seen bopp amatuñu dara lu ñuy bañ parce que tolluwaay la maanaam nguur day toll foo xam ne day yàq sa xol ba nga xam ne dootoo bëgg dootoo dootoo bañ dara dootoo rus dara dootoo am kerse ci dara mais buñ buñ seetaane ba yàlla tere papa la ñaan loru seen loxo loru nag mooy loru yàlla yàlla yàlla ñu ci yàlla musal ko yàlla may wér yàlla génn ko fa mu nekk mais bu seen loxo lan la ñuy wax addina bi donte man jàpp naa ne dara safu leen sax mais lu ñaaw la ci dara Sénégal ñoom mën nañ cee bañ am problème parce que mën naa dara du leen mais ba dana ñaaw ci deru ci diplomatie dana a ci deru Sénégal ab journaliste bu ñu téye ci ay caaxaan ba mu nar ba mu bakk nar na seen loxo mais ñoom bu ñu jëmbaliwul seen bopp dara nañ jëmbale Sénégal loolu sax man de loolu laa jàpp man bu fekkee ñoom jëmbaliwul seen bopp dara amul dara lu ñu lu ñu lu ñu ji loo xam ne wu ko seen bopp nañ ko jëmbale Sénégal xanaa xanaa Sénégal moo moo leen war a sut Sénégal moo leen war a ëpp man ci la ma jàpp man war na ñoom tolérance gu toll nañ ñu bàyyi ko ngir yàlla deful sax lu war tax ñu ngi koy tey ci li ma jàpp man rawat na mu toll ci état bi mais lii ñaaw na trop ya. ñaaw na lool lool lool ci deru Sénégal ñaaw na trop ba ba ba jégg dayo man yàlla xam na ne Pape Alé Niang dama koy seereel lu ma xam waaye waaye nag le le le le bindikatu américain bi waxoon Stephen Covey li mu rek nit du joxe lu mu yorul nee na ñoo xam ne lañ ji ci teranga lu bon lañ lay fay ndax loolu lañ am moo ko bind ab ab américain la don du donte du référence ci man waaye dama koy dama koy joxe comme euh, dafa dafa am benn dafa am benn dafa dëppoo ak roxul islamiya rek moo tax ma ma ji joxe ay exemple ndax lu baax la muy nit du joxee lu mu nit ku ne li nga ko ji li nga ko boo ko jiyee aw yiw ak teraanga lu bon la lay fayee parce que loolu la am amul leneen mën na ñoo xam ne boo la jiyee teraanga aw yiw lu baax lañ lay fay ndax loolu la ñam même boo leen jiyee ab safaan sax lu baax lañ lay fa ndax loola ñam waaye boo leen jiyee teraanga lu ba lu bon lañ lay fay boo leen jiyee boo leen jiyee ab safaan lu bon lañ lay fay ndax loolu rek la ñam loolu ab bindikuru américain moo te loolu mooy dëgg <coughs> ma jàpp ne ku toog ku teg bu toll ni liñ teg Abdoulaye Wade teg ko Karim Wade tas PDS keneen kun mën di def lu mel noonu it ma dama jàpp ne loolu loolu yaakaar naa ne waru laa naqari waaye nag yal na yàlla may xolu ni yow xolu muñ senegal yi yàlla yàlla may xolam muñ réew mi ni mu bindoo nii ak ni muy doxee nii maanaam kuy waxal yàlla te nga amub seetlu te nga fekk lu bari ci démb ak tey fi senegal mujje boo amee jom moom war nga war nga am kersa maanaam bu la dara sëful nag man waxuma ko maanaam koo xam ne yow jommalewoo sa bopp dara dara sëful la man waxu ko waxuma ko mel noonu waaye ku ku ku koo xam ne maanaam direct patriote damay fàttali ne ba may wax patriote dafa am parti bu ko moomale seen bopp am nañ fulla am nañ fayda te te ñooyee ñooy ñooy ñooy moomale sa patriote am nañ ful am nañ fayda mais mooy ku bëgg réewam rek réew mi war nga ci am jaaxle war nga ci am ak tiitaange donte ñi koy ñi ko jiite moom seen yoon nekku ci eh, nit ñi tiitaange geeg li li fi xew ni ñaaw teef yeeg ñoom ñooy man jàpp na loolu garaawoon ci ñoom ndax au moins bu bu garaawoon ci ñoom ca son locale yi la ñuy la ñuy la ñuy jëm a la ñuy jëm a rectifier lu bare bare bare bare mais ñu continuer di foncer ba ci législative yi ñu continuer ba léegi ba léegi nii gis nga yi xew ni tëj nañ Pape Alé mais tey la dëkk bi gën a métti gën a takkarnaase tey furee nga nit ñi ngi mi ngi ñi ngi taxaw di wax ci àdduna bi lu ne ñu ngi koy wax la ba léegi ba tey tey gin tey Pape Alé Niang ban la am daatee conseil casserole di am daate manifestation di am ah daatoo nit ñi di exprimer di wax seen xalaat mais loolu mooy état loolu mooy démocratie mën nañoo ñoom ñu faloo ci condition yooyu na loolu dootu fi am dootu fi am daal nit ñi dootuñu dootuñu am seen i liberté dootuñu exprimer ñu wax dara loolu ay caaxaan la loolu waruñoo permettre kenn mu mu mu koy mu koy mu koy def wala mu koy impose sénégalais parce que du du dëgg du yoon ay caaxaan rek la bak seexul xadim Pape Alé Niang nit ku am diini la nit ku am diini la li tax li tax ma wax nit ku am diini la man wax ci loo xam la man wax ci loo xam dama cee xam dara tey yàlla rek a tax man dama jiite kuréelu buy buy saytu mbirum daara yi di leen jàppale guddeeg bëccëg ku ma xamuy dégg nga ma Papa la ñaa def ci loo xam ne man man gisuguma ku ko def ci daara ci ñi ma xam laa wax moo xam autorité état la moo xam boo ko ci état moo xam ab kilifa ki amul ku def ci man li ma gis laa wax li ma gis rek laa mën a wax Papa ñaa bari na am na ay daara yoo xam ne de dimbale leen dimbal am solo ci réew mi yoo xam ne wallaahi la asim te mu jaaree ko ci man te yàlla rek moo tax ma koy wax du ma tudd ay tur ndax nit lu mu defee ci teraanga du ma tudd ay turu sëñ daara wala ay nit yoo xam ne ñoom xam nañ man xam naa yàlla xam na Pape Alé ñaa xam na ci man la ko yàlla jaarale mu taba defar leen ay mbaar defar leen ay wanag dimbal leen ci ab dund Pape Alé ñaa moo ko def kooku yee mérite na te moom te musta taxaw wax ko yàlla xam na ko musta taxaw wax sax lu lu ko nuru man rek maa koy wax te dama maa maa yeey wax ko nag ndax moo ko def kon kooku yayoo na leneen lu dul ñu koy tëj ci prison bi yàlla xam na ko du caaxaan lillahi wa rasul nañu seet yàlla nañu génn otaas yi ñu jàpp yi ci prison yi ci wàllu ñu tëj ci wàllu politique nañ leen bàyyi dara dina jëru ko ce que imagine li ñu def nii teg Sénégal yi coono bi ñu teg Sénégal yi naqaral yi ñu naqaral famille yenn famille yi imagine tey jii loolu yàlla tere kenn ñoom ñaanu ñaanu yàlla sax li ñuy def nii mu këpp seen kaw xan si nga nag wala fii da nee nañu lépp looy leble ba léegi bu la ko fayee nanga nga na nga fexe na am fulla ak ak jom ju toll ne bu taxaw fenn di ko jot ndax yaa ko leble woon lu waaye leble ba léegi bu la ko fayee bul meer loolu kese la waaye pap Alé Niang lii lay war a sol Macky Sall bàyyil Pape Alé mi war nga bàyyi otage ñi ñuy ci wàllu politique lim bi man dégg naa bari na sax waaye nañ leen bàyyi ñibbi li lay war a suul dari àddina jërul dari àddina jëru ko dari àddina jëru wala ëllëg de du añ reer waaye lu mat a sedd la si nga lii ñu teg Sénégalais yi nii mën nañ mën na yéenu ma leen bu ëllëgee ñu teg leen ko waaye bu ñu ko tegee benn Sénégal du leen yërëm benn Sénégalais du leen yërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu